waaju la xam nga fopp njëriñ jox ko xamal ko la ko xamal ko sunu borom. ay kërim mu jël fàtte démb yaay waajur la xam nga fopp njëriñ jox ko xamal ko sunu Abdul Karim fàtte démb yaay waajur la xam nga fopp njëriñ jox ko xamal ko sunu Bay Karim badatu bismi maa ngi tàmbale sunu waxi bi gën a foor ala nabi ya Abdu Karim badatu bi maa ngi boo tambale sun waqin bi ya salaam bi gën a foor ala nabi il alame yéen ñi fi teew ne leen xelal xol sabat yi bul gay ba sa bu mu tilim déglu digal ba ala nabi Abdul Karim Basiru ndaw wey na la ala nabi yal alame alhamdulillah la ilaha rasulina babil la ilaha ani wa sabil hula jaajëf mbake amagana badatu bismi magi am nga ndam dambale Abdul Karim am nga ndam bayde gërëm nga yel Allah be sabu jote ay ndigal la ay la xasaayu ak lay sabu ay la ay la xasaayu ak ñoñam deg ba cek day jox ñam ba jot garanti ya Abdou Karim sabu jote ay ndigal la ay la xasaayu ak bay fal ya Baay Faal la Baay Karim demal siyaara Ali ma gis la ngeen yu tar ma muy doxee at tarqiya ci yoonu daam Seex Abdu Karim sa bu jotee Abdou Karim am nga ngërëm ci Alaaji Maara Abdou Karim dégg ba cëkk day joxe ñam ba jot garaate ya jëm kanam dégg ba cëkk day joxe ñam ba jot garaate ya jëm kanam walla wallaahi Mbàkke yaay sëriñ sëriñ nga wute nga ak wallaahi Mbàkke yaay sëriñ sëriñ nga wute nga bëri ti saw doxini yow ñëpp a gërëm ñëpp a law bala gërëm wallahi Mbàkke yaay sëriñ yow defari nga wute nga këri ti saw doxini yow ñëpp a gërëm ci sa ak wutu ngërëm Seex Abdu yaa di xeetale wallahi yaa di jàppale kaddu yaa nuy xeetale seen basiiru naw ne si kaddu yaa nu xeetale yeeg bi dee del jalale si jëf yi ndax nu am ngaram sëriñ basiiru naw moolu ko yal na leeram te del jàllale si jëf yi ndax nu am ngaram si Abdu yaa yaa nu jàppale del si jëf yi ndax nu am wax leen si Abdu yaa nu xeetale wala si jëf yi ndax nu am ngaram si Abdu yaa nu xeetale jàppale del jàllale sa bite del jàllale sa jëf man nga ko am nga ko defal nu ko ake man nga ko am nga defal nga ko bi bi te del jalale am nga ko man nga ko defal nga ko lu de man nga ko am nga ko defal ñu ko bi rek bi te del jàllale jëf yi ndax ñu am ngërëm del jàllale jëf yi ndax ñu am ngërëm ak saa bu jotee ay ndigal la day la xasaayu ak la dégg ba cekk day joxe ñam ba jot garaati ya jëm kanam saa bu jotee ay ndigal day la xasaayu moo ko bàyyi faal jëkkëraat ya jëm sunu ñaar jaay zeyni defal nu sax ci njuum fa am amin nu sax ci njuum am ngaraar si Abdou Karim Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér